pare tegal ma ci fin bi bonne journée. Eh, kii Aliou Ba wool ma directeur yi waaye wax leen ñu ñëw jox mu tey lu ma ndogoo ñoom dañuy am seen employé muy anniversaire ñu dànqam lu ko bu màggal ñëwee ñu tànqam lu la bu gàmm ñëwee ñu tànqam lu la ku bëgg sponsoring du mën a yegg ca commercial ba aw ci yow pour jox la nga gis tànqam luy nii mu bare nga jël xaalis ba lekk ko ñu dàq la xam nga tamit entreprise yi dafa metti te dañ lay tànqam lu lu xew yuusu xam ni sama anniversaire la tey biraan xam na ko buuba xam na ko njaga xam na ko ibrahima Dieng xam na ko Assane Gueye xam na ko Babacar Fall xam na ko Souleymane Niang xam ñoom ñëpp dañ koy xam tànqam bu subaa nga sàcc seen xaalis ñu dàq la xam nga entreprise yi tamit metti na abi metti na Fanta Sall de subvention a jot ne ko Fanta Sall subvention yim mu nar a jot ci assemblée bi ay prime rek Fanta Sall Fanta bàyyi ma xel de député bi nekk Koungheul Fanta dana ko sa taxawaay ci assemblée bi Sénégal yëpp rafetlu nan ko fanta boo dematee assemblée dimbali ñu rek comme va et vient yeeg yooyu faaw nga sol jiin sol o taxawal ñu fa daal fanta bul toog assemblée fanta bul toog <laughs> yal na sa jàmm yàgg fanta sàll ku nga baas nee na ma assemblée yi nga daan dégg ñu naan danoo fal benn député euh, mu gëj feeg du ñëw ak yooyu nee na ma assemblée boobu jeex na ak fanta sàll nee na ma assemblée ñëppay ñëw kenn dootul absenté kenn dootul nelaw ah da nga xam ban heure la Fante di jug looy nelawee Fante jug ñu la koy expliqué benn député du ko nangu dépp assemblée moom ay at absente jeex na faak ay nelaw moom amatu fa Fante buy ñëw ku ko yëg da ngay ñëw Fante xamoo ban heure lay kenn dootul nelaw benn député dootul nelaw xaw ma Fante ci ban euh, ONG la bokk ban kii ban groupe xaw ma lan ah, ñan ñoo ko fal mais am nañ vision Fante ci ñan la bokk ci opposition wala ci pouvoir ah, yoo xamoo ci dara maa ngi yem <laughs> yaa ngi xëy na toog ensemble di nelaw wala di absente jeex na wante jërëjëf. Euh, président nag dama ko mere de. bi fal président assemblée romb présidente bi fal keneen président jol ku sant Diop fal ko président yow nga sant Sall doo xool ku sant Sall fal ko président doo dem assemblée xool ku sant Sall fal ko président Fanta taxaw mat président sëkk ku ne mu mën ñu faa féete Fanta.

bonne journée waa orange orange bu ñu gisee sama image bi ma toogee woon ci kaw miir bi dinañ xam ne man ak ñoom war nañoo dépasser vingt points sargal man ak orange bu ñu gisee sama photo ba ma toogoon ci kaw miiru asalem ba def ci orange boobu orange a ngi doo tàmbale dinañ xam ni man ak ñoom war nañoo dépasser vingt points sargal ci sama jour anniversaire pare tegal ma ci fin bi bonne journée